al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim noo ngi nuyu mbokku taalibe yi ak sunu kilifa yu tedd yi nga xamante ni ñu ngi ci panel bi yépp di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu kilifa gu tedd gi te di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ñaan sunu borom saxal jàmm ci sunu réew mi yéwénal nu ak may ñu jàppandal ci jaamu yàlla yi ñuy bëgg a def yépp ak dund sunu taalibi fii ci biir réew mi di fas yéene ñëwaat tey ci euh, ñi fi tàmbali woon ci di waxtaane réew yi seen wàllu géographie melo suuf yi te tàmbali woon ko ci Sénégal tey ñu bëggoon dikk rekk ci dëkk bi nga xamante ni xëy na bokk na ci ñi gën a jege ak bokk na ci ñi gën a euh, sédduloo ak ñoom ci ay digaloo muy euh, Gàmbi Gàmbi nag boo seetloo dafa bokk ci réew yi nekk ci Afrique bi fare sowu jant bokk ci réew yi gën a ndaw ci Afrique ci bu ñuy xool dayoom maanaam tolluwaayam ndax bu ñuy xayma superficie maanaam tolluwaayam toll na ci fukki junni ak benn ci ay kilomètres yu teg ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci wàllu population ñu ngi ko xayma ci xayma yi mujj yi ñu defoon ci 2018 ci mu tollook xanaa ñaari kilomètres Gambie pays réew ma muy capital ba bànjul lañ koy wax nga xamante ni ca baawoon Batters lañ ko doon wax mu nekk nag dëkk boo xamante ni ci réew mi li ëpp ci doomu aadama yi foofu la ñu féete Gambie dafa bokkoon ci dëkk yi nga xamante ni britannique yi maanaam anglais yi ñoo ko yilifoon te frontière yi mu am nii tey frontière la yoo xamante ni ñoo ñoo ko rëddoon ci atum 1889 nga xamante ne niñ ko rëddee dafa def ba Gambie dafa nekk li ñuy wax enclave maanaam dugg ci biir Sénégal ba jeex tàkk ci côté yëpp ba mu des ci côté sowu bi nga xamante ni dafa jàkkaarloog géej gi muy océan Atlantique kon Gambie dëkk bu bu xaw a xat la ci yaatuwaay mu fare nag ci ñaari wetam yëpp siq dex ki nga xamante ni moom lay wax fleuve Gambie nga xamante ni moo ko jox turam yaatuwaayam weesuwul juróom fukki mètre kon 48 mètres mooy yaatuwaay bi gën a yaatu ci Gambie te bu ñu ko doon xool ci moyenne maanaam ñu seet euh, yaatuwaay moyen bu nga xamante ni mooy bu Gambie da nga naan cinq kilomètres lay doon. am na xaatim nag bu ma sa am ci diggante réewu France ndax France yi booba moo yëlif Sénégal. kon xaatim gi am ci réewu France ak réewu Angleterre muy Royaume-Uni moo indi moo saxal digaloo yi nga xamante ni moo am diggante Gambie ak Sénégal kon ñu jàpp ni xëy na lu jiit loolu ñaari dëkk yi dafa nekkoon xëy na benn dëkk boo seetloo seeni xeet boo seetloo seeni aada ak seeni mbaax loolee da koy daal di firndeel bu dee ci wàllu ni mu séddale ko nag ci wàllu. gox yi maanaam découpage lu ñuy wax découpage administratif Gàmbi dafa séddale ko ci juróom-benni diwaan muy ay région diwaan yooyu ñu xaajaat ko ci lu mat fanweer ak juróom-ñaari district li ñuy wax district booy seet nag gox yooyu nga xamante ni moo séddale séddale ko ci dëkk ba. am na lu ñuy wax division de Greater Banjul te loolu boo tàmbalee ci penku bi ba ba ngay si sowu bi ba ngay àgg si si penku bi euh, li may lim ne noonu la toftaloo Greater Banjul nag moom yaatuwul te dafa nekk ci li wër waraan Banjul rek muy pays réew ma mooy capital ba Euh, beneen bi mooy division de west coast nga xamante ne moom pays diwaan ba muy chef lieu ba Birkaama la Birkaama di dëkk bu mag bu nekk foofu beneen bi tudd division de North Bank moom Kerewaan mooy pays ba beneen division bi mm, pays mooy mooy mooy chef lieu ba rek beneen division bi mooy Lower River moom it Massa Konko mooy pays ba beneen division bi di Central River boobu Janjaabure mooy pays ba beneen division bi di Upper River euh, pays ba mooy Basse Basse Santousou moom moo gën a jege euh, Vélingara am na nag yeneen dëkk yoo xamante ne yu mag la yoo xamante ne du ñu ay pays euh, diwaan foofu waaye yu mag la yoo xamante ni am na nit ñu bari ñu fa dëkk loolu dëkk bu ñuy wax Kontoor ci la bokk Georgetown ci la bokk Bañsang ci la bokk Bakaw ci la bokk Farafeñ ci la bokk ak Serekunda ci wàllu melokaanu dëkk ba ci wàllu géographie ñu wax ni dëkk ba mën nañ jàpp ni dëkk bu am tefes la maanaam bu fekke ci géej gi te moom sax dafa ubbiku ci géej bu mag boobu ñuy wax océan Atlantique xëy na yaatuwul ni Sénégal yaatoo nga xamante ni dana mat lu ëpp cinq cent kilomètres ci tefes gi moom comme ni nga waxoon sànq yaatuwaayam bi gën a yaatu weesuwul cinquante kilomètres quarante cinq kilomètres la te boo xool en moyenne vingt cinq kilomètres mooy mooy yaatuwaay kon côte yi nga xamante ni Gambie am na ko côte la boo xamante ni weesuwul quinze quinze kilomètres muy dëkk boo xamante ni mooy climat tropical la am boo xamante ni buñ koy xayma mën nañ ko boole ci yi nga xamante ne tropical sec la mu am ñaari saison maanaam euh, benn noor ak benn nawet noor bi dana tàmbali novembre dem ba avril nawet bi tàmbali mais dem ba octobre euh, taw bi it li ci ëpp dana weesu mille millimètres bu dee wàllu ndox yi nga xamante ne mooy ndoxu kaw yi ak ndox yi nga xamante ne dañoo fare ci biir suuf liñ koy waxee woon sànq li ñu mën a ràññaatle foofu mooy euh, fleuve Gambie bi muy dexu Gambie bi nga xamante ni day dex bu mag euh, si buñ ko xaymaa ak yeneen dexu yemambaay yi boo xamante ni mi ngi bàyyi ko Guinée ci montagne Fouta Jalon kon moom ak fleuve Sénégal ñoo bokk fi nga xamante ne foofu la ñuy bàyyi ko dugg biir Kédougou ñëw ba ni ko waxee woon keroog romb Goulombou euh, ci kaw tuuti soog a dugg biir Gàmbi nag jóge penku ba jëm ci sow bi dana traversé nag dëkk bi ci ci guddaay bi ci lu tolloog trois cent kilomètres nga xam ni kon Gàmbi mën nañ ne daanaka dëkk bi ci fànn yëpp moo xam li ko fari gànnaar ba ci li ko faree euh, Saalum lépp dafa nekk ci bassin wu bassin versant bu bu fleuve Gambie dëkk bi it dafa toog ci li nga xamante ne moom lay wax bassin sédimentaire bu dee ci dañuy xool couche géologique yi li ci ëpp ci dëkk ba ci loolu la ne loolu nag tax na ba euh, ku fa doon bënn teen doo am jafe-jafe ku fa doon bënn forage tam doo am jafe-jafe ndax bu dee napp aquifère yi nga xamante ni mooy yi féete kaw muy nappe phréatique ak yooyu am na fa waaye bu dee tamit nappe bi nga xamante ni mooy maastrichtienne nga xam moo gën a xóot moom it am na fa te am na ay euh, limuk ndox bu am solo yoo xamante ni moom ay milliards milliards mètres cubes la ci ndox yoo xamante ni mi ngi ci biir kon gàmmi boo doon xool danga naan dëkk la boo xamante ni dëkku ndox la ndax dex gi mi ngi fa waaye tamit li nga xamante ni mooy nappe phréatique ak nappe may kii profonde yi maanaam napp yu xóot yëpp ñu ngi foofu bu dee ci wàllu melokaanu dëkk bi ci wàllu tàlleem mag tundeem ak yu demee noonu mën nañu wax ni Gàmbi dëkk la boo xamante ni dafa tàlli ñay am ay suuf yoo xamante ni day suuf soo xamante ni ndox da ciy taaju muy liy wax sol hydromorphe dëgg la naam am na yeneen xeetu suuf yoo xamante ni xaw na joore tuuti mais bariw fa li fa ëpp mooy euh, sol hydromorphe yi ak sol boo xamante ni dafa xaw a allomorphe allomorphe maanaam xaw a xorom tuuti mooy ci côté embouchure bi moo waral sax boo demee foofu di nga fa gis gàncax goo xamante ni dafa dëppook mangrove mooy garab yi nga xamante ni dafay sax ci euh, suuf soo xamante ni euh, ndox mu xorom seeg ndox mu leer bi dañ fay jaxasoo léeg-léeg xorom si gën a dugg léeg-léeg ndox mu leer bi gën a dugg kon loolu am na fa am na fa it yeneen xeetu gàncax yoo xamante ni gàncaxu savane bu ami garab lay doon am na savane am na savane arboré am na arbustif am na savane herbeuse maanaam savane boo xamante ni ñax la gën a bërile ak boo xamante ni garab yu yema mbaay la gën a am ak boo xamante ni savane la waaye am na ay garab yu xaw a mag kon du mel ni forêt waaye savane lay doon waaye am ay garab yu mag lu mel ni ay ay euh, am na ay ay ay dimb comme garab yi nga xam ne ñoo fare Saalum rek garab yi am Saalum ak yi am ci gànnaaru Casamance garab yu mag yooyu lenke yeeg ak ak ak wen ak xeetof yooyu euh, am na ci côté Gambie foofu. bu dee ci wàllu nit ñi ak seeni melo ak seeni dayo euh, mën nañu wax ni Gambie niñ ñu ko waxee woon sànq rek recensement wu kii seen xayma yi yi nga xamante ni mooy gën a mujj ci ñu am euh, dëkk ba mën a toll ci ñaari million doomu aadama waaye li ëpp ci ñoom ci Banjul lañu ñu dëkk buñ doon xayma kilomètre carré bu nekk ñaata ko dëkkee dañ naan mat na téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu bokk nag kon ci densité population maanaam ñu dëkk ci kilomètre carré bu ne yi gën a rëy ci Afrique bi nga xam ne moo féete sowu jant dëkk bi nu muy yokkoo mooy daanaka da nga at bu jot téeméer bu ñëw ñetti nit dana si dooleeku ni ñu amee si yaakaaru gudd fan maanaam li ñuy wax espérance de vie nga xamante ni indicateur la boo xamante ne ci wàllu démographie dañ koy xayma euh, kenn ku ne euh, foofu nii nga xamante ni la seen euh, wàllu kër docteur yeeg ak ni ñuy yokkee jàpp nalu dëkkuwaay ak jàpp na dund yi àgg na ci. Euh, kenn ku ne am na yaakaar dund juróom fukki at juróom benn fukki at ak benn loolu muy xayma yi nga xamante ni euh, banque mondiale moo koy def ci wàllu diin nag islam mooy diine ji fa gën a bari nga xamante ni téeméer goo jël juróom-ñetti fukk yi ak juróom ay jullit lañu euh, tegu ci nag am na ay ñi nga xamante ni ci ci ci ci diine yi chrétien la ñuy attewoo ak lu néew ñi nga xamante ni ci diine yi cosaan yi <clears throat> ñoom la ñuy la ñuy dëkk bi langue bi nga xam ne mooy kàllaama bi ñuy bi ñuy liggéeyee muy làng officielle ba anglais la ndax ñoom ñoo leen euh, colonisé woon ñoo leen ñoo notoon réew ma waaye teewut yeneen langue yi nga xamante ne mooy langue cosaanu réew ma am na fa ñu ràññaat la ci wolof <coughs> ràññaat la ci mandeng mandeng moo ci gën a bari ràññaat la ci pël pël moo tegu ci làkku mandeng yi ràññaat la fa joola ràññaat la fa séeréer euh, bu dee xeetu ethnie yi maanaam xeet yi fa dëkkee moom it noonu ma ko waxee noonu la tëddee rek ci ci ci ci làkk yi muy mandeng yi nga xam ñoo ñoo fa ñoo fa gën a ñoo fa gën a bari ñoom téeméer boo jël ñeent fukk ak benn ay ay lañu euh, bu dee pël boo jël fukk yi ak ñett ay pël lañu wolof yi téeméer boo jël fukk yi ñett ay wolof lañu joolaay yi téeméer boo jël juróom-ñaari ay joolaa lañu am na tamit ay saraxule saraxule yi téeméer boo jël juróom-benn lañu. <clears throat> ñoom nit ni ñu seetlu ko mooy li xew fii rek Sénégal nga xamante ni day doon société boo xamante ni day dañuy dañuy dañuy am ay ay ay ay ñi ñii ñooy euh, géer yi ñii ñooy ñi nga xamante ni ay jàmbur lañu ñii ñooy xamante ni euh, ay ay ay ay tëgg lañu yu xeetoog yooyu wala sax ay jaam yëpp am na foofu waaye ci xeetu joolaa ñoom nga xamante ni ñoo nekk foofu ñoom loolu amul ci seen biir nekkuñu société boo xamante ni dañoo euh, boddi nit ñi wala ñu xàjjaatle leen ci yu mel ni ñoom daanaka ñëpp a yem ci seen i ci seen i ci seen i ci seen i seen i chaîne boobu. jullit yi fa nekk tamit am na fa ay tijaan am na fa ay xaadar am na fa ay murit bu dee ci wàllu politique gu biir réew mi Gàmbi day dëkk boo xamante ni euh, nangu nañ fa parti yu bari parti politique yu bari ne fa. mu am nag régime bi nga xamante ne régime présidentiel lañ koy wax te président bi mooy nekk chef de l'État nekk tamit chef de gouvernement euh, li nga xamante ne mooy pouvoir exécutif bi maanaam ñiy doxal réew ma loolu dafa nekk ci loxoy gouvernement bi euh, li nga xamante ne nag mooy wàllu euh, pencum ndaw réew mi moom da gis nii dafa séddale ko comme Sénégal diggante gouvernement bi ak Euh, député yi maanaam parlement bi euh, constitution bi nga xamante ne lañ fa tëggoon 1970 moom dafa séddale woon nag pouvoir yi maanaam euh, sañ-sañ yi ay pàcc yoo xamante ni benn bu ne da ngaa beru nga xamante ni benn bu ne benn bi si ñoom moo yore woon li ñuy wax pouvoir exécutif bi maanaam di doxal beneen bi ci tegu moo yoroon wàllu pencu ndaw réew mi maanaam di contrôler gouvernement bi beneen bi yore wàllu yoon ak àtte Euh, loolu nag ba nga xamante ni agsi nañu 1994 dañ ko mujjee dindi ginnaaw ba mu amee coup d'état militaire bi nga xamante ni moo fa jëlee Daouda Diawara indi fa Yaya Jammeh bi nga xamante ni moo fa jëlee Diawara ba nga xamante ni moom 70 ba 94 moo fa nekkoon di jiite réew ma diggante bi am na beneen coup d'état boo xamante ni doon nañ ko fa jéem booba ku ñuy wax ku koy sàmm saaña moo ko fa doon jéem a def Sénégal ñëw. wallu leen ba coup d'état ba mujjul antu waaye coup d'état bu mujj bi nga xamante ni moom moo fa moo ko fa jëlee muy bu 94 boobu Yaya Jammeh moo ko fa def te moo ko fa mujj jëlee ci nguur gi. am na nag ñoom euh, décret bu ñu jël boo xamante ni 1995 la boo xam ne dafa tànnoon commission boo xamante ni moo waroon soppi constitution bi euh, indi ci yi nga xamante ni mooy euh, seddle pouvoir yi ci diggante exécutif ñiy doxal. ak euh, pencu ndaw réew mi bi nga xamante ne day day day day day doon monocaméral comme comme comme Sénégal nga xamante ne du ànd ak Sénat ak euh, penc boo xamante ne pour àtte la ànd ak euh, woy àtte yi te doon boo xamante ne day jàmbure di garanti tamit ñu sàmm ak ak yelleef doomu aadama yi. Gàmbi ci ab politique am ak ci dund gi nga xamante ne xamee nañ ko. am na ñetti président yoo xamante ne jaar nañ fa ba mu amee boobu kenn ba mu amee ba mu moomee boppam moom tey ki si jiitu mooy Daawara Jaawara wax naa ko sànq ki ci tegu mooy Yaya Jammeh ki ci tegu mooy ki fa nekk tey di euh, Adama Barrow. bu dee ci wàllu politique biir réew ma euh, dañoo seetlu ni Gambie nii mu nekkee enclave ci biir Sénégal maanaam nekk dëkk boo xamante ni si wet yëpp bu bokkut ak géej gi lépp Sénégal da koo yéew. Euh, loolu tax na ba ci wàllu kaaraangeem ak ci wàllu économie yépp dafa aju ci Sénégal mës na am jamono yoo xamante ni ñaari réew yi sax xaatimoon nañu ay àtte ak ay dogal yoo xamante ne dafa sosoon benn déggoo ak benn jàppaloo boo xamante ne euh, fédération lañ ko doon lañ ko doon wooyee confédération bu Sénégal bi loolu jamono 1982 la ñu woon loolu nag bañ ko doxalee diirub juróom-ñaari at dañ ko mujjee dindi ndax ay amlante yu amoon si diggante ñaari réew yi donc 1989 la ñu tas euh, confédération boobu euh, donte ay demlante daana am ci diggante euh, ñaari njiiti réew yi ak seeni seeni gouvernement loole moom la ñu mujjee jàpp te amlante yi nag yi si ëpp daraan ñëw jóge ci liñ daan payoor gi ñu daan am ci euh, bac bi nga xamante ni oto yi jóge Sénégal di jëm Casamance jaar Gambie daanañ ko jaar ci bac bi mu am ay jafe-jafe yu yu yu tar yoo xamante ni daana fa am euh, wàllu situation tim bi amoon Casamance maanaam woy fipp yi nga xamante ne ñi ñoo fa ñoo fa ne rawatina ñi nekkoon ci euh, wàllu gànnaar bi am na si ñoom ñoo xamante ni dafa fesoon ci ni Gambie da leen daan leen daan euh, jàppale ak it yeneen xeetu amlante yoo xamante ne jëm na ci ay nit ñu jóge Gambie di dugg Sénégal di fa dagg ay ay ay bant yooyu yooyu yëpp bokkoon na ci li nga xamante ne moo indi woon ñagas ñagas yi ba daanaka nekkin bi xawoon naa tuuti am ñagas ñagas euh, soppat yi am na ci wàllu politique yi te mu am te mu ñëw ci mu yàggul xaw naa indi nag ay maanaam soppeeku na bu baax ci diggante ñaari réew yi ba jege yoo gën a am ba jëflante ci wàllu diplomatie gën a gën a ratax ba tax na sax fii mu nekk nii ci wàllu kaaraange réew mi am na ci wàllu CEDEAO danañ ci dikkaat léegi ay soldaaru euh, Sénégal yoo xamante ni mat nañu fi naa juróomi téeméer yoo xamante ni ña nga fa di liggéey pour CEDEAO waaye ci fexe ba jàmm ak salaam mën a am ci ci réew ma euh, ñu seetlu ba tey tamit ci ni euh, président bu bees bi nga xamante ne moo fa nekk ginnaaw mu jëlee nguur gi euh, génn dem nemmeeku yeneen réew yi mu njëkk a def ci Sénégal la ko defee ba tax ay xaatim yu am solo jib ci ñaari réew yi loolu sax xëy na tax na ci li ñu waxoon conseil présidentiel bi amoon ci diggante ñaari réew sénégalo gambien ñu defoon ko foofu noonu ci euh, ci Gambie am na ay déggoo yu am solo yoo xamante ni ci wàllu euh, kaaraange ci wàllu euh, yoon ci wàllu transport ci transport routier ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sport muy tàggat yaram ci wàllu culture ak ci wàllu njàng ak jàngale ak ci wàllu même énergie ñaari réew yi xaatimoon nañ ko fi may wax ak boo ñëwee ci Gàmbi si bagu Farafeñe yi euh, amatul nit ñi dafa yéex wala dafa euh, yàgg ndax pom am na fa nit ñi dañuy ñëw rek yéeg si pom bi jàll jàll dem ñu ko tamit ni Gàmbi membre la ci organisation boobu ñuy wax organisation de la mise en valeur du fleuve Gàmbi kon dex ki nga xamante ni daanaka euh, Guinée lay bàyyi ko dugg Sénégal teer si Gàmbi tax na ba am na déggoo bu am ci réew yi nga xamante ne dañoo lëkkaloo def comme ni OMVS def ci diggante Guinée Mali Mauritanie ak Mali ak Sénégal ngir di ko liggéeyee ci wàllu énergie di ko liggéey ci wàllu mbay di ko liggéey tamit ci wàllu transport lu mel noonu am na diggante Guinée Gambie ak Sénégal ak même Guinée Bissau ci euh, OM OM OMVG muy organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie muy kuréel boo xamante ni daal. dañ ko tëral ngir di liggéey ak di jëriñoo euh, dex gi nga xamante ne mooy dexu dexu Gàmbi Gàmbi it bokk na ci CEDEAO te loolu tamit euh, mook Sénégal ak yeneen réew ñoo ñoo ñoo ci nekk bokk na ci li ñuy wooyee comité inter état de lutte contre la sécheresse au muy kuréel boo xam ne moom it day xeex euh, wàllu bekkoor ci dëkk yi nga xamante ni mooy yi fare Saalum euh, Maghreb waaw nga xamante ni euh, organisation bu am solo la boo xamante ni ci wàllu xeex njéeréer yeeg lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci dëkku sayel yi loolu da ci da jëfandikoo ak euh, di jëmbati garab ak yu ni mel Gambie tamit bokk na ci loolu ñuy wax organisation de la coopération islamique OCI nga xamante ni kuréel daal bi mu bokkoon te génn ci mu nekkoon common commonwealth te euh, ba fi seen nguur gi soppi ko ak euh, élection yi mujj yi euh, delluwaat nañ ci depuis le 8 février 2018 ba tey ci wàllu jëflante ak bitim réew ñu fàttali ni Gàmbi fëla daluwaayu li ñuy wax cour africaine des droits de l'homme et des nga xamante ne dafa ajuwu ci Euh, mbootaayu réewi Afrique yi te muy euh, saytu ak di xool ni ñuy doxale charte africaine des droits de l'homme et des peuples maanaam charte yi tëral ngir sàmm àq ak yelleefu doomu aadama yi ak euh, askan yi foofu noonu siège am mi ngi nekk Gambie bu ñu ñëwee nag ci wàllu koom-koom ñu seet ni Gambie di dëkk boo xamante ni dañ ko boole ci dëkk yi seen koom-koom xaw a des ginnaaw li ñuy wax pays les moins avancés ndax bu ñu jëlee ñaar téeméeri dëkk yeeg ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy suivre ci loolu moom bi mooy ñaar téeméeri bi ak fukk ak ñaar kon nga xam ni euh, fukki dëkk ak juróom-benn donc la raw ci bu ñuy xayma li ñuy wax indice de développement humain loolu nag xayma la woon boo xamante ni 2018 nga defoon kon. loolu wane na ni Gàmbi day dëkk boo xamante ni koom-koomam xaw na des koom-koom googu sax mu ngi gën a euh, sukkandiku ci li nga xamante ni mooy secteur primaire secteur primaire mooy liggéey yi nga xam ne dafa aju ci kaw gi muy mbay sàmm ak i napp nga xamante ni koom ki nga xamante ni dina ko dugal ci réew ma bu dee secteur primaire dañ naan euh, téeméer boo jël ñaar fukk la te loolu euh, nit ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi lay lay lay doon loolu nag mbay mi ngi ci napp mi ngi ci sàmm mi ngi ci mbay moo xamante ne nag la comme senegal li ci ëpp dafa aju rek ci ni euh, mi ngi taw ñu mën a bay waaye bu maralee wala taw bi yéex a ñëw wala yooyu yëpp da si am ay gàllankoor te ba tey li nga xamante ni la dëkk ba soxla pour dunde ko da koy jëggi ci bitti la koy jëlee kon bayuñu lu doy dëkk ba te seen mbay ci wàllu li jëfandikoo ceeb moo ci ëpp waaye am na tamit yeneen xeetu euh, pepp yi moo xam dugub la muy suuna euh, bëriwu fa trop waaye saañoog ak bësi ak euh, yu ni mel bokk na ci ñuy bay bëri na ay meññeent moo xam mango la moo xam banaana la ak yeneen fruit yoo xamante ne dëkk ba danañ ko bay ci wàllu sàmm gi it Euh, nag am na fa euh, xeetu gàtt yi muy xar ak mu am nag espèce boo xamante ni bu bu ci zone ba la mooy bi nga xamante ni mën naa résister li ñuy wax euh, trypanosomiase muy xeetu race ndaama boobu nga xamante ni gox boobu yëpp ba ngay ba egg Casamance moom moo fa gën a moo fa gën a bëri. lu bokkut ak secteur primaire boobu secteur secondaire bi tamit am na fa waaye moom it téeméer boo jël. fukk yeeg ñeent yi lay représenté ci wàllu produit intérieur bi dëkk ba am na tamit ay secteur service bi nga xamante ni mi ngi suqaliku ndànk-ndànk euh, tey li si ëpp ca réew ma ci loolu lay ajoo kon téeméer boo jël juróom benn fukk yi ak juróom ci lay jëm loolu mu jëm na ci wàllu télécommunication ak ci wàllu économie numérique tourisme nag nga xamante ni li ci ëpp euh, bu dee si touriste yi seen clientèle yi ci anglais yi la nga xamante ne ñoo leen colonisé woon ak allemand yi moom doon na fa pàcc bu am solo boo xamante ne euh, dana yëngal bu baax comme koom réew mi ci dina dimbali nit ñi ñu am ay su ñuy yëngoo ci wàllu wàllu liggéey euh, dëkk ba di Gàmbi gis nañu ni euh, jamono yi nga xamante ne crise bi nga xamante ne amoon na fa ak mbay mu xawoon a sooxe bi amoon euh, jamono yi soixante 2016 taxoon na ba koom-koom bi xawoon a ndërmeelu tuuti waaye diggante bi gis nañu mu xaw a tàmbalee di suqaliku di fittiwaat euh, at yi si tegu te loolu tamit gën na firndewu ci fan yi ñu weesu nga xamante ne euh, wàllu tabax ak wàllu tourisme yooyu yëpp bokk na ay secteurs yoo xamante ne ñoom ñooy ñoddi koom-koomu gox ba mu jëm kanam waaye nag euh, jamono yi moo xam foofu la comme Sénégal ak euh, mbas mi nga xamante ne xam ne gis nañ ko fi am na tam jeexital boo xamante ne bu xaw a euh, doy kii la maanaam négatif ci koom-koomu koom réew mi la Gàmbi seen xaalis bi nga xamante ne lañuy jëfandikoo dalasi la tudd dalasi boobu benn dalasi daanaka mu ngi tolloog euh, ñaari dërëm CFA yu teg genn wàll la kon bu dee dalasi fifteen la euh, kon ñaari dërëm ak genn wàll lay doon ci CFA kon fukki dërëm yi CFA ngay am pour am benn dalasi jërë ngeen jëf ñu yemale foofu pour gàmmi ba beneen yoon euh, bu ko defee ñu dikk nag ci réewu Guinée Bissau ndax comme ni nga ko waxee woon dañoo bëgg jeexal réewu Afrique yi bu ba noppi soo ko mën a jàll ci yeneen réew yi nekk ci yeneen continent ci biir Afrique bi dëkk yi gën a jege Sénégal dañuy tàmbalee bu defee yi si des ñu tàmbale ko ci arafu abajada yi ba ba ñuy àgg ci eh, bi ci mujj ci dëkk bi ñu leen di jéggulu di dolluwaat di balu àq di leen bal àq te ñaan suñu borom dolli ñu sutura dolli ñu tawfeex wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf